nee na ñi ngi doore suñu wax ci feddali ay nuyoom ak suñuy ziyaara ak suñu taalibe ak suñu doomoo nee ci suñu kilifa gu baax gii muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général kullu murit waaye général kullu kuy jullit di la dellu di la ziyaarewaat bu baax a baax Mbàkke nee ci tuuru turandoo xaritam muy monsieur le président basiiru Diomaye Diakhar fay nee bi muy ñëw ba bi muy gaare fii nee moom la doon waxtaanal ci téléphone bi ne donte bi mu jógee ci yow ak léegi ñaari fan la waaye insisté na bu baax a baax ni ko ne mu jottali la nuyoom bu baax Mbacke ak mbégteem ci niñ ko dalalee fii barki dem niñ ko fi teralee niñ ko fi yaatale waaye ni ñu dalalee xelam ne di jàllale sunu ziyaar ci turu gouvernement bi yépp nag. naam li ne naam li mu àndal ci ay ministre lu mat juróom la. waaye dañoo représenté mboolem gouvernement bi nga xam bi nga xam ni moom mii moo ko jiite. suñu ne suñu teewaay fii nag. Eh, mën nañ nañoo wax ni ci qualité yu bëree bëree bari la. waaye eh, waaye dafay feddali. solo si nga xam ni lii ñuy célébrer tey am na ko ci nun euh, ndax màggal gi def nañu ñetti conseil des ministres yoo xam ni def président daf ko tudd ko ne président daf ko tuddaat ko daal di joxe ay ndigal ci bépp ministre boo xam ni war na cee war na cee am cër muy ministre de l' intérieur ministre de l' assainissement ak ministre de la santé ak mboolem seen ministre yëpp nee na loolu day wane importance bi nga xam ni jox nañu ko màggal gi jox nañu ko bés bi nee di dellu di sant yàlla bu baax ndax bi nu fi géjee ak léegi def na weer wala lu ko ëpp waaye visite privée la woon. taalibe bi. ak doom gi. moo ñëwoon ziar si tey. ñëw nemmeeku si. ñëw sàkku si ñaan. waaye ñëw duy ci tey nag ñu ñëw fi. ci cër gi nga xam ni yàlla jox nañu ko. muy premier ministre. bu Sénégal. ne loolu bu ñu ko waxee nag li ñuy njëkk def mooy sant yàlla bu baax ndax nëga si daaw màggal gi ñoo ko seetaan ci télé gi ñoo ngi ko seetaan ci télé tëdd ci lalu hôpital tëdd ci lalu am ci ne loolu la amoon ci màggal gi daaw waaye amoon ci lu ëpp solo loolu yëpp waaye amoon ci lu ëpp solo loolu yëpp mooy ci jamono jii daaw mooy la ñoom ministre Aïda Mbodj ak Habib Sy ñëw fii ziar si la Mbacké bi ñu fi jógee sëriñ bi yónni leen sëriñ leen jox leen benn boyetu tàndarma jox ni leen dem leen seetal ma sama doom sama taalibe ne ko ni ko ñaan naa ko digal naa ko mu jël ci tàndarma ji te dakkal grève de la faim bi muy def mi ngi woon topp ak jamono jii nu toll daaw ndax gën saa gudd ñeent wala juróomi fan moo dox diggam ak màggal gi daaw kon loolu di lu rëy rëy lool ci nun luñ dul mës a fàtte ndax jamono ju ne ak li mu méngool ak li mu tollool mën a xool taxawaayu kenn ku ci nekk ci nit ñi ndax foofu mu tëddoon ne xalaatoon na ni ñëpp fàtte nañ ko ndekete mbàkke sunu kilifa gu baax gii toogul benn fan toogul benn guddi ne te xelam demut ci sunu jëm yi mu def ci li nga nga def ci li nga ci war a def lépp mbàkke ci zahir ak ci baatin lu ci nit ñi xam ak luñ ci xamul luñ ci yëg ak luñ ci yëgut waaye li ci ëpp solo nee nga yónnee ay nit ci foo xam ne dañ doon tere kenn ñëw fekk ci foo xam ne dañ doon tere kenn ñëw fekk si ko fa daal ñaan ñu bàyyi leen ñu ñëw fekk ko fa ñëw jottali ma bataaxal ñëw ko bataaxal bi bàyyi ko ci yow nee na loolu di lu rëy ci nun lool Mbàkke kon lañ ciy jàngatit. lañ ciy jàngatit. mooy. mooy. léppay jeex. ci àdduna. lu door rek. dana jeex. te it. lu waay muñ. waay muñ. ngir yàlla. ngir yàlla. ak nu mu mën a jeexee ci bëtu nit ñi. ak nu mu mën a jeexee ci bëtu nit ñi. ndam lay ndam rek lay doon. mën na jeexee euh, mën na jeexee noo xam ne nit ñi dañuy jàpp ni la. ne fekk ca yàlla succès la ne mën na doon safaan bi itam ndax borom bés bii keroog ba muy jóge fii di dem ne jàpp na ni ña ko waroon ñëpp am nañu njàqare waaye moom day amoon na yaqin ni sacrifice boobu muy def naataange rek ci tegu nee na ndax tey Tuubaa du naataange ah kay kon jegelewuñu suñu bopp foofu suñu bopp foofu sax de. waaye nag jàpp nañu. waaye nag jàpp nañu ni. ku jóg di dox. te jàpp ni li ngay dox. te jàpp ni li ngay dox. lu baax la luy defar la ak loo ci mën a daj. ci yoon wi. te muñee ko yàlla. te muñee ko yàlla. tôt tard rek. tôt tard ndam lay rek lay mujj. la ca am solo nag. solo nag. mooy di ñaan yàlla. sunu borom. nee te di leen ñaan bu baax Mbàkke ngeen ñaanal leen ko. xam nañ ne nee xam na ni yéen a ngi koy ñaanal bis bu ne. ñoo ngi ñu nee ñi ngi ko koy jottalit ñu koy dégg. waaye di gën a sàkku ñaan. rek bu baax. lii fi jaar yëpp. naataange topp ci. naataange pour senegal yëpp. pour réew mi yëpp. ba ñëpp gis ko. te yàlla may ñu ñu fekk ko yàt yu bari. nee di daaneel kàddoom nag ci feddali yéene ci dëkk bi. ci ji mu am ci dëkk bu sell bi di Touba. nee na président bi mu ñëwee barki démb rek waxaat na ko. Touba. Touba. mënuñoo bañ a ba ñàkk a a am ju rëy. budul dara rek. dara it. bu yàlla sàkkee ab dëkk. bu yàlla boo xam ni. boo xam bu jiitu itam moo ci tegu. ku yàlla dénk réew mi. nga ngay defar réew mi boo sàgganee dëkk boobu doo réussir li ngay def rax ci nag ne dañoo am contrat bu ñu am ak Touba ndax taxawaayu waa Touba ci at yi weesu nekk suñu wet yëg ñu jàppale ñu xeexal ñu ba àddina bi yépp gis ko nee na loolu kóllëre la goo xam ni nee lu koy fecc day di jóge ci nun mukk mbag bu sooba yàlla moo taxit ci suñuy programme ci suñuy programme yéene gi ñu am yéene ci defar ci li nga xam ne mooy ajo ci li nga xam ne mooy aajo yi waa dëkk bii mooy ajo yi borom dëkk bi kenn mënu fee def dara te fii de kenn mënu fee def dara te diisoo ak borom dëkk bi ba xam lan mooy ay priorité am noonu lañ ko mooñaalee dugal ko ci programme bi te bu soobee yàlla ci weer yi di ñëw ci at yi di ñëw kenn ku ci ne dina ci teg bëtam incha allah ci lu jëm ci liggéey kon mën nañoo bañ a guddal wax ji di ñaan yàlla sunu boroom màggalu ren gii ñu dund ko ci jàmm ak dal di masawit ñii nga ñi nga xam ni itam fii ci biir Touba. am nañ tuuti loraange. ci loo xam ni. ci loo xam ni. mi ngi jóge ci euh, ndox mi. xam ni mi ngi jóge ci ndox mi. am nañu yéene am nañu yéene nag. ci programme yi ñuy développé. ci fii lekk ay jamono. fii lekk ay jamono. toog dootuñu toog naan. naan ndox ma nangu na ay kër ci Touba. waaye nag noo ngi leen di masawu bu baax. am na instruction yi ñuy jox gouvernement bi. indi nañu fi lu xaw a takku ci ay matuwaay am na lu war a ñëw tey jii sax mu ngi ci doon wax léegi ak honorable Serigne Cheikh Coromi ak monsieur le maire waaye luñ ci man rek Mbàkke pour woyofal mbir yi te continuer ci liggéey boo xam ni mooy saafale mbir mi définitivement nee na bi soobe yàlla danañu ko def Mbàkke kon di ñaan yàlla it màggal gi lépp loo xam ni ñoo ngi ko fi def yiw jàng alxuraan jàng xasida yi zikri lépp yal na ko yàlla boole nangu ko mu doon xéewal ci réew mi mu doon bunt ubbeeku ci li ñu bëgg nun ñëpp mooy développement réew mi defar ko ne ba ñu ñuy ñee faneen moo xam ci arab la wala ci sinwaa la wala ci euh, nasaraan nee ñu am lu mel noonu wala lu ko raw nee te loolu day lu mën a nekk la mag ñi ñaan nañ ko ci réew mi te seen ñaan nangu na nee la ca des nag nun la ci takk sunu ndigg ci liggéey ci organiser wu ci discipliné wu kon noo ngi dellu Mbakke nee di la sant bu baax Mbakke ne di ñaan yàlla sunu boroom yokk wér-gu-yaram gi yàlla sunu borom bàyyil na sunu kanam ay ati ati at mu uuf nu di ñu teete di ñu digal di ñu ñaanal di ñu orienté kon noo ngi gërëm ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuh delloo lool ci président Ousmane Sonko Seydina Ousmane Sonko mu ñoo ngi am mbégte bu baax baax ci teewaay bi ak kaddu yi ak kaddu yu jot yi kaddu yu rafet yi kaddu yu matale yi mooy dégg nañ mu ne suñu xol sedd na ci suñu xel gën naa dal suñu yaakaar it gën naa dolli mu ne kàddu yi nga xam ne moom la Seydina Ousmane mu ne gëm nañ ko bu baax baax mu ne loolu rek mooy di ci am solo volonté ji ak yéene ji ak pasteur mu ne loolu rek mooy li ci am solo te xam fi wax dëgg kon loolu rek mooy li ci am solo mu ne am mbégte bu baax di am yaakaar bu baax di sant di gërëm di ñaan bu baax itam suñu borom mi dafa ko mu gàttandu leen ak tawfiq ba lépp li seen yéene gi rafet yi lépp suñu borom gàttandu leen yéen ak tawfiq yombal na lépp ba seen yéene ji nu mu a rafete nu mu a mate mu ne loolu mooy li ci am solo mu ne gannaaw yéene ji lépp lu baax la yëngatu bi lépp lu baax la kon loolu rek mooy li ci solo kon am nañu am xel mu dal baax ñi ngi sant ak gërëm mu ne ñoom bu ñu nekkoon naka jekk rek fas yéene nekkal sëriñ bi mu ne sëriñ bi boolewuloon dara boromam ak yonent bi mu ne loolee nag lu ñàkk-ñàkk solo lu ñu doy di doy di foofee rek la ñu fas yéene teg suñu tànk suñu kéem kàttan nekkal sëriñ bi sëriñ bi nag ñëpp bokk kon dañ fi nekk rek ku ñëw fekk ñu fi kuy dem it ñu fi loolu rek lañ fas yéene sax mu ne alhamdulilah waxul ma sax seen yéen ak seen taxawaay ak seen taxawaay bi ñu am mu ne jëlale na loolu mu ne waaye suñu yitte jëpp mooy taxaw nekk fi sëriñ bi rek te sëriñ bi ñëpp a ko bokk incha allahu mu ne taxawaay bi yëg nañ ko te xam nañ ko baax mu ngi ne ñoo ngi gën a fas yéene feddali suñu laxasaay ànd koo yéen zahir ak baatin mu ne loolu mooy li fi nekk danañ ko ànd yéen bu baax a baax mu ne xam nañ seen taxawaay li ci kanam lépp mu ne lépp loolu baax lu bëgg luñ bëgg réew mi luy defar réew mi mu ne loolu danañ ci ànd ak ci biir ak ci biti incha mu ne kon bayaboo na seen xel daal bu baax mu ne ni suñu xel dale suñu xel dal na bu baax mu ne gannaaw yéene ji yéene ji rafet la yitte ji mat na saxawaay bi dëgër na mu ne ko loolu ku yóbboo rafet njort ku yóbboo na sa xel dal baax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf